Bon, moi, c'est Ibrahim Baro. Ibrahim Baro, Taï Boumaïwak. Je veux dire que Nyari Casquette là, fait Tahawé. Moi, Taï, l'Ifichéo, d'Afaboko mon département, parce que je suis le président de la commission jeunesse sport et de la vie associative et des loisirs de la commune de Anne-Belair. muy ben, benn côté bi beneen bi euh, Ali ki nga xamni moi initiateur bi un ami d'enfance avec qui on a cheminé ensemble loolu moom moo waral taille. ñu gis ma sama taxawaay bi ma am mu nekk taxawaayu ñaari casquette benn bi en tant que autorité représentant la mairie ci côté yi nga xam ni moo jëm ci volet sport beneen bi Ali nekk un ami d'enfance ñuy ànd loolu moo waral tey ñun ñu ñëw bokk ci organisation bi impliqué wu ci ba mu jeex waaw au niveau de l'organisation defe naa ni fu mu nekk pare nañ dernier réglage yi moo des mooy bi ci jëkk am nañ site bi Moi, euh, site bi mooy ex poste dispensaire bi nga xamni mo nek ci an lébu euh, derrière le euh, grande mosquée grande mosquée bi ci côté marché public bi fofu la ñuy defee la manifestation manifestation bi nak ni ngeen ko xamé ku xam manifestation sargal Moussa Ndoye nga xamni ni événement bu ndaw déjà amna ci la nga xamni côté logistique tout ce qui est bâche siège barrière am nañu ko ba paré déjà tay ci goudi la ñuy commencer def mise en place bi mais ku wax sargal Moussa ndoy nga xamanteni amna ci la nga xamanteni événement bu reuy la amna ci 14h ba 16h dafa am la nga xamanteni dañu am événement bu mag ba nga xamni mom moy ubi programme bi moy France Argentine dañ koy diffuser suba ci trois écrans géants ya nga xamanteni ñi nga xamni dafa nek ben ñu ñu ñëw accompagner nga xamni dafa nek nga xamni dañuy lutter muy euh, ci euh, migration irrégulière ñooñu dañu ñëw euh, may population Hann Bel-Air France Argentine kooku day nekk 14 heures ba 16 heures parce que ñun suñu suñu programme mu ngi commencé à 16 heures 30 bu ñu paree camion sono mu nga fa dañuy ñëw nag dugg ci programme bi programme bi nag nu ñu ko taxawalee lu yomb la mooy bi ci jëkk dina am la nga xamante ni mooy notable yi dinañ jël kaddu parce que Ali dafa am ñu fi andal muy le Congo Chimachine Club mu nek ña nga Moussa a eu la chance de les rencontrer ba mu démé Paris entraîner ak ñom tay bu féké dañu fi ñëw nek à 15 Andak ak Ali ñëw à Anne Beller di sargalalé Moussa ndey koku défé naa ni yaraax yëpp lañ ko défal motax duñu def lu dul Ali au nom de toute la population de Anne parce que ñun ñoo waron ñëw defal li Moussa tay bu ñu ci accompagner dañ ci dañ ci sawar mais nak amna anecdote ba nga il faut que ñu wax ko Ali ba muy ñëw fi nañu xamni nekul trick ba nga xamni euh, lu officiel la ni ma ko mënee wax moy c'est pas la mairie qui organise mais Ali naa moom ba mu njëkkee ñëw jour bi mu njëkkee ñëw il a eu à rencontrer le maire bi mu ñëwee wax projet Mo xamni projet Ali la mu né lu mu ci man japp actuellement pour des problèmes euh, de santé il est aux États-Unis mais chaque jour mu ngi woote di wax Ali fu mu tollu ak ay ganam tout ce qui est logistique chaise base barrière même tatami bini indi lep ci mom ci mom la mom moko dox mom moko offrir Ali pour contribuer Banen Moussa tamit suba la mairie de Anne amna lu mu ko préparel dañ koy décerner diplôme ba nga xamanteni citoyen d'honneur de Anne la koku bu ko le maire di def da koy def au nom de toute la population de Anne. ñun fofu lañ ci tollu programme bi dernier réglage yi lañu ñu nekk ànd ak Moussa ak Congo machine Club andak ak Ali defe na ni pour am une grande mobilisation ak réussite totale pour suba mooy d'abord di lancer un appel à toute la population de Anne wax Ali ñi mu àndal Congo Smashin Club bu ñu ñëwee di sargal Moussa Ndoye dañ ko def ci turu yaraax kon yaraax yëpp nañu génn ànd ak euh, Congo Smashin Club sargal doomu yaraax euh, Moussa Ndoye bi nga xamante ni dafa nekk fierté Anne bu ñuy wax Hann Bel-Air yëpp la wax parce que bu ñu waxee yaraax amna fuñ koy gisé mais Hann bel yëpp lay représenter tay loolu lay lancer message bi nga xamni mak ndaw jigen fans club baa suba tout ce qui est organisation dañ koy bàyyi ñun ñeu ñeu fété sen ginnaw di ñaan suba yalla may ñu une grande réussite que Moussa Ndoy champion bi nga xamni mom lañu am Ali nak amna na leneen la nga xamni daf ko innover aussi ñu xam ko tout ce qui est sport de combat indi nañ fi ay ay ay ay équipement sport ya nga xamni des kimono euh, matériel pour pour pour préscolaire bi pour le football amul discipline yëpp dal ñep xaj nañ ci vraiment dal Ali suba ba na toucher touché couche couche sport bi yëpp à ànd tout ce qui est sport suba yaakaar naa ni dinañ ci gis sen bopp xamni li lañ doon xaar ci doomu yarax Ali li muy def duñu def lu dul di remercier au nom de toute la population de Hann je vous remercie. Salam alaykum Sénégal Salam alaykum Dakar alaykum yarax lay wax. Euh, je que rek euh, programme bi moom ñu ngi ci boobu ba di nap na bi xaw na parce que def na ay mois yo xam ñu ngi koy waaj di ko waxtaanee presque yexina euh d'ici demi lañ ko wara def pour man ci dem événement bi normal ñu ngi ci nak boobu ba léegi di waxtaan di def ay démarches presque paré nañ ba paré sax laay wax. juste que am nañ ay gan yo xamanteni ñu ngi joggé ba France ñëw fi ànd ak Ali Euh, Moussa ci ñoom la nekkoon franchement mu nekk affaire boo xam ne affaire bu nice la juste ko ñoom ñu war ko sargal àndante ci ak ñun xam nga àndante ci ak ñun ak waa Yaraax yëpp ak fépp kuy bëggee Moussa rek foo mën a nekk ci àdduna xam nga teew ak nga ñàkk teew yëg-yëg bi rek moo am solo compris ñu ngi koy waajal comme nuñ ko war a waajalee di ci xaar ñëpp di ñaan yàlla aussi mu réussite àndante ci ak sunu grand yi ñoom Baro xam nga Père Aliou ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ak ñoom Modidia

xeetu esport yëpp dañ ko fa def xam nga juste ko rek pour sargal Moussa parce que événement bi bi mu amee mu bëre ba daan dafa mën ay xew-xew yu ci am yoo xam ne ci programme borom bi subhanahu wa taala la amoon na dese muyu ñu def dara ñu dugg ci koor biñ jugee ci koor gi lii la yàlla dogalaat kon juste ko rek dañuy xam ne loo gis dafa am àpp app bi nag mooy yàlla moo tuddoo ne après lii lii mooy am ñu kontaan ci bëgg xam nga bégte gi nag mooy lan Moussa moom lu ko yokk lu nekk ñun suñu loxo mu ngi ci parce que du ay question que day xarit la ñu léegi mais ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que benn deret la en plus yaraax lay représente ñun dañu fier pour dëkk yaraax compris mu nekk nag quelqu'un boo xamante ni nii tey fu ne mën na ko yóbbu suñu tur ndax am na mag ñu fi jaar def yeneen ak yeneen te ñu ngi gis importance boobu ñun ñi jeunes yi ñu ngi koy gis yaraax lu nekk ngi fi kon xam nga on est laay wax pour ñoo xamante pour dëkk yaraax te dañ koy gën a dundal di ko gën a représenter fu ñu mën a dem événement bi nag ñu ngi ci woo ñëpp ah bég nañu xam nga kontaan nañu aussi di ñaanal Moussa ay yeneen yeneen mbir yoo xamante ni tey ñuy dund ba di ko sargale biir États-Unis ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla lépp facile ci moom ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yombalal lépp ci barke Seydina Mohamed ñu atteindre affaire bi incha allahu taala ñu ngi bégab ñëpp